spécial rentrée des classes ah ubbite école bi c'est une société Cipex, une société industrielle papeterie express pour Sénégal une équipe dynamique te qualifié à 100 pour jeunes sénégalais jeunes machines machine industrielle de la haute technologie di proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la SIPEX une boutique agréée librairie papeterie Mohamed Bourguiba LPM Sandaga LPM LPM Koloban, LPM Kaulak, LPM Tilène LPM Kurmasar. Hello Partenaire GBIS Mou, GBIS Kaulak, LPM Bount. centre commercial Al Maktoum la CIPEX et la LPM toujours au service du social les commerçants et grossistes pour tout renseignement contactez-nous au 77 633 21 24 ou le 77 571 07 02 Denis Joflente ak mairie municipalité ministères yi ak ñi nga xam ne bonne volonté yi bëgg a jàpp ci jàng bu xalé yi ngeen ñew ñu jox leen ay kaye ci ay ñëk yu yomb ngeen dimbali xalé yi ndax éducation moy defar réew sëriñ Cheikh nee na alhamdulilahi rabbil alamin Néna ñi ngi dolli santi Yalla bu baaxa baax nee na di yëkkati kàddu ci ndigal nee na di fas yéene ubbil suñu wayjur suñu kilifa sëriñ Moulay Abdoul Aziz bu suñu maam Mouhamadul Habib nee ñu ngi koy nuyu di ko jox cëram di ko jox wàccuwaayam ndax moo ñu jox ndigal ngir ñu nuyul ko njaboot gu tedd ki fi daje jiital ci autorité yi nga xam ni ñoo jiitu ci kanamu njaboot gi muy excellence consul Alpha Diallo di rafetlu Kadoui baax Keti, yi mu Yalla fa mission nuyu député parlement européen monsieur Soumaouro neena momi tam kàddu yi mu yekati kàddu unité la waye kàddu yu ama am solo la neena na tabaarakallahu muy nuyu kilifa yi mu sekkal jataa bi yeb tàmbale ko ci mulay abdul Aziz bu mam Habib jaar ci rakam Cheikh Mouhamadul Habib منصور جار في رقم Serigne Cheikh Omar Sy sëñ Moustapha Sy Jamil ak ñu ñu àndal ñépp ak délégation bi ma lim léegi te ñu ànd ak ñoom waaye nuyu nag mbokk yu yi mu bokkal jataay bi yépp nee na muy nuyoo boo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di ñaan nuyoo boobu tabaarakallaahu li mu làmb lépp yàlla nañu ko yàlla defal amiin nee na kàddu yi du mën a gudd ndax li ci tënku dafa bare te tabaarakallaahu suñu wayjur bii di sëriñ Moulay Abdoul Aziz war na am kàddu yu mu délivré ci turu xalifa bi waaye nag di rafetlu nag jataayu tey mu sababoo ci Habib jóge ci wayjuram wu tedd waaye nag ki joxe ndigal li di xalifa bi di sëriñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour di sant ñi nga xam ni ñépp ñoo ko séq ndax nag nit amul lu ëpp kilifaam nangul sa kilifa ci jaamu yàlla la bokk kilifa yi amul lu ëpp njabootam kon fa tabaarakallaahu su melee na mu mel jëmmi ñëw ubbi inauguré zawiya maam Cheikh El bii mu sababoon ci mbokk yu tëju woon tijjeeku ñi daawul laale di laale loolu nak war nañ wax ñun ñep alhamdullilah rabbil alamin ta sante ko yàlla sante ko itam ñi nga xamni ni ñoo def loolu moy wax deug yàlla honoré sen kilifa ci lim bëggoon mu melni nak nag daje bii ñu daje tay mooy ubbi zawiya bi yàlla na yàlla nangul ñu ko nee dafa am benn aaya bu muy jàng ba nga xam ni naagu warul kenn nee na soo demee ba defe ni yegg nga nga déglu aaya bi ni ko yàlla waxee nga déglu aaya bi ni ko yàlla waxee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلا دفا وقت القرآن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله وأين nag الله فعسى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين نانا دف نسا جاكا بيجل رجي انت يا الله محمد صلى الله عليه وسلم جل وقتي تلا سيدي الحاج مالك واخ تي يننت يالا محمد نجك نجوم مدينة عندك صحابة يتديا لمو نجك يتيو صنكو ديكو فرلو موي تخوال نيغو يالا سامبو لو سيد الحاج مالك واخ فوف توت li bi madinatu munawara muy néegu yàlla في مسجد القدر نصف القاد قد دعي الغبيب تصغير غب سائل اغتنيم على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما بسببه من مربدا وقيسون مع إلى تمم مع لسيدك الموصوف بالكرم على وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما ما مسير شيختي ثم الشترامر بدل موصول ما إلى تنميم مالي صديقي المعرف كان على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا نائبنا عابد وفي مسجده يا ابني وساقف من الجريد يساوي قامة النسب yàlla nañu yàlla fayal suñu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick mu mel ni loolu moo ñu dajale tey taxawal néegu yàlla dundal ko nag ci gëm yàlla ak topp ndigal taxawal julli joxe muurum koor joxe azaka ragal yàlla topp li yàlla bëgg yépp yàlla ne na amaana ñooñu dey ñooy woy jub ni def nga li nga def lépp yàlla seede li nga def ñu mën na nekk ni ñooñu dey ñooy ñi jub kon jubu yàlla ci jaamam loolu mooy li yàlla digle كن فتبارك الله موي داجي بو خامني داجي سانت يالا لا دي نيان يالا مو نانغول ني جيف يي يالا بو مو نيك سونو موجو كيسه جتاي بي تبارك الله مو خا وخات ني دون اوبيل نك سونو باي سونو كليفه تمو أم كادو يمور يكتي يجوغي تا نيوه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيو نيب يبوكو ديغلو باب مولاي عبد العزيز ترنو شيخ حاج عبد العزيز لله درك يا عبد العزيز librairie papeterie Mohamed. Hello partenaire, nous sommes ici sur l'avenue Charanta en face de l'université Diop de Dakar. C'est la rentrée des classes, ça y est, c'est la rentrée des classes. Ça y est, c'est la rentrée des classes. Vous avez besoin de quoi pour vos enfants Venez chercher des classes. Vous avez besoin de quoi pour vos enfants Venez chercher vite. Il y a tout pour vos enfants. Il y a tout pour vos enfants. C'est la rentrée des classes chez Hello partenaire. Alors, pour cette rentrée, Lungen sort le fourniture pour Dom, librairie papeterie Mohamed. Hello, partenaire ici à l'avenue Cheikh sur l'avenue Cheikh Anta Diop tout le petit Sénégal ba Bassandaga, Sandaga partout c'est la rentrée merci pour la confiance merci